ñu ngi delloo sant yàlla tey julli ci yonent bi tedd bi sallallahu taala di wa sallam di ñaanal sëriñ Touba sëriñ Mountakha suñu boroom yàggal ko fi loolu te wéral ko di ko ñaanal sëriñ Amdim suñu Modou Mbenn Fall di ko ñaanal mboolem xalifa yi waa kër sëriñ Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall ak mboolem jullit ñëpp ñu ngi siyaar suñu kilifa gi toog muy sëriñ Abdou Fall ak sëñ Dame Fall ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax tey jégalu kàddu yi eh, di wax ci seen kàddu di wax ci kàddu sëñ Mbacke Ndiaye ak mboolem kër sëñ Baari Ndiaye gépp ak mboolem kër waa kër seex Mor Talla Fall gépp te bu ma ko tuddee tuddaale naa kër sëñ Ali Fall Mbawar ndax duñ duñ ñaari kër genn kër lañ di siyaar mboolem ko fi di wax naan inna lillahi wa inna ci suñ jarbaat bi nga xamante ni bii moom la yàlla dogal mu làqu démb eh, ñun ñëpp nag ñu am ci naqar wu yaatu lool woo xamante ni bii foo ko takk rek romb na ko waaye nag am kilifa moo tax rek kenn boobu ba tey jógut jéem dara ngir ginnaaw dañoo am kilifa dañuy too toog ba déglu ndigal ci suñuy kilifa di suñ di sant itam di nuyu itam sëñ Ndam euh, mu mi nga xamante ni moom la fi xalifa général de Baye Fall yónni yëf yi nag ni mu demee nenn rek la wax ji bari na waaye nenn rek la demee. Cheikh Abdoul Aziz di doomi sëñ Mbacke Ndiaye ak sëñ di doomi sëñ Mbacke Ndiaye moom sëñ Baara Ndiaye di doomit soxna Ndiaye Fall moom Cheikh Abdoul Aziz Fall moom Cheikh Mortala moom maam Cheikh Ibrahima Fall di sëtu maam Cheikh Ibrahima Fall daa nekk ca daara ja yàlla def mu xëy di dem ci tool yi biñ demee tool it la leen yëkkati woon mooy liggéey bañ demee tar ya fa nekk muy tari gerte yi ñu koy wëlbati gis ay nag ci biir toolu dugub bi ñu ñëw ni sàmm bi génneel nag yi ci biir toolu dugub bi sàmm bi mel ni kuy génne nag yi di ko génne ba ba ñoom ñu wëlbatiku ngir delluwaat ci seenub liggéey sàmm bi da pël bi ci boppam daal di wëlbatiku jël jaasi ji dóor ko ko cim naq fa yam yem ba mu ko dóoree cim naq fa yam ñaaree ñaari rakkam ya nga xam ndax sëñ Aziz ñëwut mag pour ñëpp xam ko itam fukki at ak juróom-ñett laam niwut tonkal moo xamante ni bi dafa demoon ngir xeexu jeeg kenn gone la goo xam dañ naan ko defal mu def bàyyil mu bàyyi ñam àndaloon nit ay rakkam yu ndaw lañ def naa kenn ki sax doom la ci moom ndax doomi magam la ñoo daw ñëw fekk sëñ Mbàkke mi bàyyam ca kër ga ñu ne ko sëñ Assis de ma ngay sàmm sàmm ya rey nañ ko moom ba ñëwee ba fa ba mu ñëwee daan leen dem leen jëli ko ñu takk saret bi dem jëli ko mu tasanteek ñoom ci yoon wi biñ demee di ko jëli bi muy ñëw la tasanteek ñoom ci yoon wi bi mu ñëwee ci yoon wi gis ko ak melo wi mu ne tàng leen ndox xëpp ko ko ñu tàng ndox xëpp ko ko waaye biñ ko xëppoo yënguwut mu ni kii de daa mel ni wàcc na liggéey waaye moo xam ne ginnaaw yàlla daa def ñu rey ko ci àll bi ci loo xamante ni bi teguñu ko fenn du xuloo du xeex du dara kon bala ñu ko faa génne ndawul buur war naa ñëw ci la doole woo ndawul buur woo maire bi nga xamante ni bi mooy maireu nu mu tuddati ngay meeru nga it moom ginnaaw kilifa la yàlla def na ay nit teg ko fa daa waroon am maanu gu toll ni balaa wax ci mbir ñu koy jàllale mu teey ba xam nu mu demee waaye ginnaaw xamut yëf yi nu mu demee la ko waroon rek mooy mu teey waaye bu ne ay xale yu doon jàppante moom dafa mel ni yëf def daf koo woyefal te ku ko woyefal ku nekk rek daa doonut sa sa doom wala mu doon sa mbokk ndax xale boo xamante ni bi jàng alxuraan ba mokkal ko nekk ci daara ji di liggéey di wut ngërëmal yàlla ak yonenteem di tër bi yu yoon wa nga xam ne maamam mam Cheikh Ibrahima Fall moom la sosoon mu cay jaar ngir bu mënul ni maamam it mu am ab cëru boppam ñu fekk ko fa rey ko fi ci Mali Foro yow ngay meer waroon cee wax waxin woo xamante ni bi ñëpp dinañ xam ni yow mii li la war def nga ko waaye nga woyofal ko ni moom kat ay xale yu doon xuloo la ba jàppante ak kippal loola demewul noonu nii ma wax ni la demee moom li mu wax xamu ci dara nii ma wax ni la demee ginnaaw bi itam ba ñëwee police ñëw lañ ca def lu doy waar la ndax gendarmerie ndax ba mu ñëwee fekk ay nit ñuy xeex yow booy xeex boo ñaari nit dee xeex da ngay dugg ci digg bi ni kii taxawal nii ni kii taxawal nii waaye da ñoom dañoo ñëw nekk ci ginnaaw pël yi donga yi nekk nii pël yi nekk ci digg bi gendarmerie yi nekk ci ginnaaw pël yi wëlbatiku jël ay lacrymogène di ko sànni dong yi di ko sànni dong yi nga xam ne am na ñaar kenn ku ñaar ñuñ ci coraat te ginnaaw yàlla loolu moo tax kon ñoom tëddewuñ njaaxaan naay li leen war defuñu ko mu mel ni nag jamono toll na foo xamante ni bii da ngay dégg ñu ne donga ba la lañ rey waaye pël ba mu musoo dégg ñu ne rey nañ ko te ko jiitu ci ñaari at ci ginnaaw am na kuñ fa reyoon koo xam ne dongab sëñ Mbàkke mii la foofu noonu ca daara ja lañ ko reye woon moom ba mu ñëwee lan la def daa yéeg ci daa gis pël bi mu yéeg ci kaw garab gi di gortal mu ñëw ni ko wàccal garab gi ruuñ nañ ba pare bul gortal bant yi yàlla def bi mu ko ko waxee mu mel ni kuy wàcc mu won ko ginnaaw bi mu ko wonee ginnaaw di dem pël bi wàcc ci suuf au lieu mu dem yoonam waaye da koo yoot ba tolloog moom jël jaasi ji dóor ko ko ci doq mu tëdd foofu la nekk di wéqu ba sedd guy ndax réew mi moom dañuy laaj ni ndax dongo yi dañ cee amutub cër takkati der yi dañ cee amutub cër wala lan moo tax ñu ñu ta takk ko ko rayoon la ca gën a yéeme démb xeex ba ma nga ca nga xam ne ñaari at tëdd koo ci kaso bi rey nit ci tayeef te tëddoo ñaari at ci biir kaso xanaa sàcc ci yenn sàcc yi sax boo ko sàccee tëdd lu ëpp ñaari at ci kaso bi sàkkantuma nga rey nit ci tayeef te sàndarma yi dama koo dagoon waaye am na ci ñoo xamante ni bi dañ leen doon wax naan leen buñ sànnee galangaan ndax kër ma seen bi dañ naan leen boo leen dee góor taxaw leen kon kooku moom war nañ fañ far ba pare kon nag loolu moom ñi ngi koy ñaawlu mbooleem Baye Fall yi ñi ngi koy ñaawlu ndax sëñ sëñ Modou Mbenda ci boppam mi xalifa général di Baye Fall moo fi yónnee ndawam muy sëñ daam bi di di xamal ni da ko fee fekkut waaye kon moom ci boppam mooy toog ñu wax lii ñuy wax ci kanam kon mi ngi koy ñaawlu ba fa ñaawlu yem di xamal gouvernement bi président de la république di ko xamal ni ko lii nii muy seetaan fa jëm de bis bu ñu fa àggee du ko neex di ko wax am de justice ñu ngi koy interpellé di ko wax ni ko lii ñuy seetaan ci réew mi fa mu jëm bu fa àggee du ko neex di xam ne ñu mën a fayul suñ bopp lañ waaye nag dañ yar jàngal ñu ñu am kilifa moo tax bala ñoo def dara. toog ak suñuy kilifa ba pare waaye mbir mu të dakk nag ah bu yàggee de nu nekk manees na koo faje kon ñu ngi koy bàyyi loo xel ñëpp nag di leen xamal ni lii fa am lu ñaaw la lu ñaaw la ba fa ba fa ñaaw am yàgg kon ñu ngi koy bàyyi loo xel ñëpp di xam ni mbooleem koo xamante ni bii waxoon na ci te waxut lii ñu wax rek xamal leen ni la mu wax moom dara du ca dëgg day sos rek kon ñu ngi ñu ngi jégalu bu baax na kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati ci suñ kanamu kilifa ndax ay taalibe lañ rek waaye ñu ngi jégalu kàddu yi bu baax a baax a baax a baax a baax te tey baalu àq ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah